dal leen ak jàmm ci le Rufisquois TV mu mubarak ñu fas yéene ñëw jukkil leen ñi gën a fës ci actualité bi Babacar Lo Ndiaye du jeune apériste basé fële ci Kaolack démb def na ay révélation yu doy waar fële ci seen web ci waxam nee na dix-neuf candidats yi retenir am na koo xam ne boroom ñaari tur la kawteef te nee na kooku amul doom amul jabar te lobby LGBT yi ñoo koy soutenir ndaxte bu falo dafa bëgg légaliser mbirum góor jigéen fii ci réew mi muy lu doy chavirement gaal bi amoon fële ca Ndar am na élément yu bees yu yokku ndaxte gendarmerie bi doon def enquête jàpp na six personnes yoo xam ne ñoo doon def embarcation yi maanaam ñoom ñoo doon recruter ñu dem ci mbëkk mi te li ci gën mooy ne am na ku jigéen koo xam ne bokk na si ñu ngi leen jàppee entre Saint-Louis ak Diourbel fële ca Lendeng nekk ci Tëngéej dëkk maam Kumba Lamb ñu fay bay mbayum légume cinquante six hectares yi fa nekk am na pàcc boo xam ne littus foncier am na fa ndaxte maraîcher yi ne foofu ñu opposé wu ci construction benn station service ah station essence ah benn terrain de football boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a implanté ñooy Pierre Mboup ah Paco Boy ci loolu maraîcher yi nga xam ne ñoo leen défendre seen bërëb liggéeyukaay jot nañ convocation ba am nañu ci téye fële sa commissariat bu Tëngéej ndaxte ci xibaar yu ñu am Pierre Mboup dafa porte plainte ñenn ci ñoom ndaxte dañ ko doon menacé mu nekk bo xibaar boo xam ne le Rufisquois point info dina toppal bu am si lu gën a wér a xam épisode boobu fan lay mujje tey xibaar bi gën a te tiisloo ñëpp ñëpp am si mbetteel mooy agression bu barbare bu ñaaw bi Maimouna Ndour fay mi moom 7TV subir ndaxte desxat xibaar bu jigéen boobu xam ne moo réussir ba implanté 7TV benn sàmba boy moo ko ko paaka bi mu génnee si set TV bi nga xam ne foofu la dëkk tamit mu nekk lu ñaaw loo xam ne ñëpp ko ñaawlu ndaxte instant bi Maimouna Ndour Faye ñu ngi ko évacué fële ca hôpital militaire Bookam mais sant yàlla pronostic bi baax na ndaxte yaakaar nañ ne ay fanam

ci agression Maïmouna Ndour fay am tay président de la république condamne na vous condamné di acte barbare bobu ba très très le lâche qui ko def te néna na dina def liggéeyam ba mu fu mu mel ken ko balé ken du ko balé ken du ko yërem aussi ñu mëna wax ni Robert Bourgi na ci le 4 mars le président Macky Sall nar pas. def ndaxte tubaab boobu xam au Sénégal donc soxol soxal lool nee le 4 mars président Macky Sall dina bind conseil constitutionnel pour nous au delà du 2 avril ndaxte président Macky Sall waxna na barki conseil des ministres mais. décision am c'est irrévocable bu le 2 avril jotee day bàyyi réew mi dem maître Sidiki Kaba bi nga xam ni démb génn na joxe na deux cas de figure yi nga xam ne moo mën a ne mooy conseil constitutionnel soit article trente six day maintenir président Macky Sall ba élection yi jot wa ilaa bu dee président assemblée nationale moo koy wutu Amadou Mame Diop bu boobaa élection yi day dañ kaa daxaat trois mois ndaxte dañuy repartir à zéro defaraat processus bi bees